Euh, dal leen ak jàmm mbokku internet yi ñu naa leen mbokk yi euh, maa ngi seen message vidéo yi xamante ne bëgg ngeen ko sur Senfootball TV incha allah dinaa jéem a def le maximum de vidéo yu xamante ne yéen a ngi koy xaar euh, seen bànneex moom fi tee man boo leen kontaanee rek ma kontaan dama ñëw si benn entretien boo xamante ne Omar Daf dafa amal ak waa record donc Omar Daf première question bi dañ ko wax noo gisee qualification yu gaynde yi muy wax ne franchement fierté la def ci kontaan lool lool lool trop trop parce que moom moo bu baax a baax match du ko tardé di encourager Aliou Cissé parce que xam na ne liggéeyu entraîneur dafa métti lool donc da koy encourager di tamit. soutenir euh, équipe bi lee euh, moom muy wax ne mu ngi koy ñaanal objectif bi xamante ne jox nañ ko que mu mu mu ko ak jàmm di wax ne équipe bi tamit progressé na bu baax a baax li mu sax moo tax mu jël première beneen question bu xamante ne posé nañ ko question ñu nekk que ndax yow ba tey euh, mën nga liggéey ak sélection bi maanaam ci mos nañ ne 2018 moo ngi foon si coupe du monde mu waaw li muy regarder match yëpp. fépp fu ñu soxlee sama xalaat maa ngi nii xam nga bu ma woo rek incha allah dinaa def le maximum ndax équipe bu progressé ñun ñëpp ñoo si jëriñu donc gis na ne équipe bi progressé na euh, ñoo ngi am maîtrise si match yi muy wax ne ñu ñëpp ay sénégalais lañu képp ku xamante ne war nga mën a jàppale équipe nationale du Sénégal waroo sax xaar donc euh, moom neen ci côté boobu noonu amul benn problème moom Omar Daf beneen question bu xamante pose nañ ñu ne ban jàngat nga am si équipe bu Aliou Cissé jamono bi muy wax ne wax ne léegi football euh, dafa changé au niveau la ñuy wax donc euh, gis nañ ne équipe bu Aliou Cissé li leen wax dinañ ko def maanaam bu ñu waree qualifié dinañ qualifié ba pare dañoo efficace ba pare réaliste donc loolu lu xamante ne lu mu nemmeeku la muy wax ne moom nag comme que technicien du fi nekk nag pour critiquer euh, parce que xam na la mooy parce que entraîneur xam na ni mu méttee ba tax na moom lenn rek la mën a wax mu ne kii xamante ne moo yor groupe bi nekk entraîneur bi rek moo la mën a wax yenn yi waaye ñoom ñi xamante ne li leen intéressé lool nekk entraîneur mooy résultat ba pare soutenir équipe bi leen ñu posé ko beneen question ñu nekk bu fekkee Sénégal dafa dem Cameroun jëlul coupe d'Afrique loolu xanaa échec la xanaa échec la muy wax ne Coupe d'Afrique bii di ñëw dafa nar a métti lool équipe yu baax a baax ñoo fa nekk ba pare dañoo bëgg a teew Sénégal nag am na équipe bu baax te équipe bi tamit progressé na comme ni mu leen ko waxee moo jël premier ci poulam euh, chaque édition dañ ñuy xaar mais dañu war a dal tey humble ba ñu ñëw rek ne ñoo fa mën ak yooyu noonu bu ñu defee loolu ba ba pare ñu liggéey euh, jàpp na ne am na benn confiance ci àll bu ñu defee li ñu war. mën nañu def tournoi bu baax ñu ne yow am nga expérience Coupe d'Afrique lan moo mën a yàqal Sénégal mu ne waaw mën si naa Coupe d'Afrique cinq fois xam naa Coupe d'Afrique compétition bu métti la mais il faut que nga am ambition mais aussi tamit nga woyof nga dal bañ a xeeb benn équipe. ne premier coupe d'Afrique um, en tant que joueur ak bu Amara Traoré 2012 dañu doon wax ne ñooy meilleure équipe Afrique waaye gis ngeen ne gis ngeen Algérie dafa baax nii Maroc dafa baax Tunisie dafa baax Égypte Côte d'Ivoire Cameroun ñëpp baax donc bu ñu xeeb équipe bi nañu liggéey te jàpp na ne bu ñu defee loolu mën nañu am dara ba pare tout le temps bañ a xeeb kañ loolu moom c'est très important donc mbokk yi si tënk rek euh, Omar entretien bi la amale ak waa Record ci commentaire ma ngeen ma si wax seen xalaat ak seen gis-gis ma leen di jaajëfal bu baax a baax di leen wax ba beneen sur seen football TV